ko waxoon rek tey ñu ngi teeree gaal gi fii nga xamante ni doomu Ambroise Sarr moo ñu fi woo tey teg mise 2 millions 500 li ñuy wax doomu mbër jàngil bëre des na la ñam tey bàyyam bëre na ba yóbbu équipe nationale fu nekk tey doomam moo teg mise 2 millions 500. gannaaw loolu maa ngi nuy bépp internet boo xam ne ñu ngi déglu Leewtoo TV di leen ziyaare ci Korité bi ñu jógee di leen déwénati di leen baal àq di leen baalu àq waaye maa ngi toog sama papa ki nga xamante ni moom mooy. Ambroise Sarr nga xamante ni yóbbu na Sénégal fu nekk papa maa ngi lay ziare. maa ngi lay delloo ziar bi. di la baalu àq di la baal àq. Eh, man aussi maa ngi leen di baal eh, feebar bi nga xam ne moo lëmbee àdduna yëpp yal na ko fi yàlla jëlee yàlla mun na ko yàlla na ko def. ñu lay déwénati di la wax ni que rek tey jii li ñuy wax doomi mbëre jàngal bëre dees na la ñam tey sa doom def lii tey jii nan la def ci yow en tant que mbër sa doom dem léegi mu takk ngeen bu bëre tey mu ñëw teg mise 2 millions fii tey nan la la def. waaw def na ma lu bari parce que comme ni nga waxee ndoom mboor jàngil bare jàng na mais mu préféré doon promoteur ma rafetlu ko lool di ko ci ñaanal yal na réussir ak jàmm lim ci bëgg yal na ko yàlla def. li mu bëgg yàlla na ko ci yàlla def nga di ko ñaanal ñaanu bàyyi barke la ci doom waaye en tant que nga xam ne moom daan yóbbu. équipe nationale Sénégal tey xale yi ngemb tey di compétir fii tey lan la la def tey jii nii. waaw ba léegi rek xam nga comme danga wax ne moo doon yóbbu ba léegi man may yóbbu defe naa nag feebar bi moo ñu xaw a freiné mais ba léegi fa ma nekkoon maa ngi fa moo tax aussi fu tëgg làmb rek maa ngi dem xool xale yi nu ñu bindoo ak nu ñu tëree moo tax eh, fu ñu tëgg rek maa ngi xool daal pour bu ëllëgee bu ñu amee compétition. ma xam fan laa war a jaar. nga xam fan nga war a jaar kon papa bëri nañu li la fi teg tey nga xool xale yi nga war a yóbbu compétir waaye bëri na tamit li la fi teg tey mooy sa doom moo fi tëgg waaye buñ nee Père Ambroise Sarr nga xam ne yóbbu na équipe nationale de lutte partout euh, euh, kañ nga commencé yóbbu école de ak ñan ak nga yàgg àndal. waaw mais xam nga bi ma dalee yóbbu équipe nationale mu ngi ci 30 ans ren 30 ans nag du ñaari fan du ñetti fan. te maa ngi ciy gërëm yàlla yàlla bi nga xam ne moo ñu fi bàyyi jox ñu wér ak wérle ba ñuy mun a yóbbu équipe nationale. ko di wax mooy Père Ambroise Sarr moom mooy jël lutte di ko yóbbu fu ne ci Sénégal représenté Sénégal xale yi di bëree tey jii Père Ambroise Sarr mi moo leen di jël di leen yóbbu partout dans le monde ñu fay représenté Sénégal Père looy tàggatoo. xanaa di leen gërëm yéen mi nga xam ne yéenay. waa Leewtoo. waa Leewtoo TV ci kanam kanam kanam yàlla mun na ko yàlla na ko def. yal na mu mu jig leen ngeen jig nit ñi jig mbër yi jóg amateur yi jóg jib jig ñëpp daal waaw. dégg ngeen loolu Père Ambroise Sarr wax kon xam naa dañuy dox tuuti jël ambiance jël nit yi nga xam ne ci kanam tuuti ñu dawal leen jëlal leen final demi final quart de finale. tegal sa baaraam foofu ci kanam tuuti ñu doom doom xool amateur di nga gis bàkku tey di nga gis bëre ndax lii mooy làmb xale yu bëri fii la ñu luqeekoo lutte simple bi ci la ñëpp luqeekoo. kon ñu dem tuuti jëli ambiance jël bàkk waaye jël combat ba quart de finale demi finale ak finale. waa Leewtoo gis nga tey lépp fii lay xewee tey ñu fekk fi koo xamante ne nii dem na tournoi CEDEAO jël fa ay drapeau duma leen ko présenté maa ngi taxaw ak moom nii dina wax turam wax santam wax fi mu jaar yëpp ba jël li nga xam ne mooy drapeau euh, CEDEAO nuyu naa la. fayu naa la. tur bi naka la. Karina Sambu. Karina Sambu yaa jëloon drapeau CEDEAO. <laughs> ku jël drapeau Sénégal mu ngi nee toog daa bañ a ñëw. dina ñëw nag. <laughs> man maa ngi doog a waajal. Ah. drapeau chef d' bi. drapeau. chef d' yaa ngi waajal drapeau chef de l' waaw. en tant que jigéen di bëre naka la lay def. <laughs> xam nga en tant di bëre moom bu ñu gisee dañuy naan waaw lan la jigéen di bëre ana jigéen ak bëre mais loolu yëpp. doo xool loolu sa bëgg-bëgg rek ngay xool li nga bëgg moom même biñ ciy wax sa suba ginnaaw suba yëpp yow yaa xam li nga bëgg moo tax man loolu laa am lu may wax. loolu looy wax mais xalaat xalaat nga rek yow un jour comme sa xarit jël na drapeau woo nga jël ko yow. xalaat naa ko. yaa ngi ci yoon bi. maa ngi ci yoon bi. yaa ngi ci entraînement yi. bu baax. yaa ngi ci lépp. maa ngi ci entraîné maa ngi waajal bu baax a baax xalaat naa ne dinaa ko jël. pare nga pour ñëw liggéey euh, waxtaan ak waa Leewtoo TV kañ ngay ñëw ñu ànd def benn liggéey ñun ak ñun waa Leewtoo TV ak yow. jour boo leen pare boo leen ñu woowee rek ñu wisi leen. lan ngay wax ci Leewtoo TV. ah xanaa remercier leen de ñu continuer def seen liggéey bu baax a baax di jàppale jigéen yi def nit. Leewtoo TV dina leen produire dina tëgg làmb jigéen incha allah tega sa baaraam foofu ci kattanu yàlla. merci loolu lañ bëgg. merci. ba tey rek waa Leewtoo TV ñi ngi ki nga xamante ni moom moo jël drapeau CEDEAO duma leen ko présenté mooy présenté boppam fii ngeen koy gis ni jigéen la mais moom moo jël drapo CEDEAO CEDEAO nag undu na lépp boo ko waxee rek undu na lépp tur bi naka la. Safiatou Goudiaby. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. noo ko jàngatee. a ah, ma bi daal ni ma ko jàngatee mooy maa ngi woo sama mbokku jigéen yëpp ñu ñëw. entraîner waajal seen bopp ndax compétition yeeg si kanam ndax koo ci wax kaay bëre day rus nit ñi daal mais amu rus sport la daal waaw nit ñi nañ gën a génn entraîner waajal seen bopp. yow yan drapeau nga jël. man euh, drapeau chef de l'état bii passé xam nga dañoo doon def démonstration ñu ma boole loon maa leen gagné mais jeu de la francophonie bi ñu demoon euh, Côte d'Ivoire euh, am naa fa or am naa fa médaille d'argent. am nga fa or am nga fa argent CEDEAO bi. boobu tamit man maa gagné woon. ban ban nga gagné wax ko. boobu tamit argent laa fa amoon. mooy CEDEAO. waaw. yaa ngi pare fan. ah instant yi ñoo ngi préparé euh, kii euh, championnat d'Afrique mois de juin mais xamaguñu ndax dinañ dem wala duñ dem. ñaan ngeen yàlla dem représenter Sénégal. incha allah loolu la ñuy ñaan saa su képp kuy entraîné rek dangay ñaan yàlla ñu génnee la nga représenté sa dëkk. yan dëkk naka lay méttee seen compétir yéen. ah non ñun lu si ëpp euh, lute olympique la ñuy def ndax tey jii su ma doon dem di bëre ji dinaa wàññi 5 kilos ndax augmenté naa 5 kilos ndax tapis la moo gën a metti suuf si comprendre nga mais lépp rek dañuy ne trois fois 6 heures du matin 10 heures 17 heures ñu mun a waajal suñu bopp. fàttali ñu yaa jël lan lan ak lan nga jël yow. Euh, bi ma génnee ni euh, daaw Côte d'Ivoire boobu médaille de bronze la amoon bi ñu demee Tunisie médaille de médaille d'argent ma dem euh, Congo médaille d'argent ma dem Côte d'Ivoire ma am ñetti médaille benn or ñaari argent ma dem Paris am fa de bronze ma dem euh, Tchad am fa médaille de bronze. góor baax na jigéen baax na Yacine Boubou jàmbaar la gis nga jigéen ñi dañuy bëri dégg nga loolu mu lim yëpp ci ay médailles bëri na fi góor ñi takk ngemb te duñ ko am looy tàggatoo. waaw maa ngi ñaaxaat sama moos mbokk sportif yi ñoom ñëpp euh, ñu génn entraîné waajal seen bopp ñu xam ne am na compétition yu nekk suñu kanam. dinañ leen invité ngeen ñëw Leewtoo TV ñu tëggal leen làmb bëgg ngeen. ankay loolu rek la ñuy ñaanu yàlla. looy wax ci Leewtoo TV. Leewtoo TV sa kaw sa kanam. ci lu baax. waaw ci lu baax moom. kooku nag kii moom moo jël drapeau yëngeen limu lim yëpp bi ci mujj mooy CEDEAO ñu ngi koy jaajëfal di pare nag am waxtaan ak moom foofu ci Leewtoo TV. incha allahu rabbi merci beaucoup Allez ciao merci